4 x bii ngeen gis sama ginnaaw Lota Gaye la sëtub bi doomi aale nguy njaay ji cuuneen lañ jëm ñi day def social ceeb bu bari la bëgg a séddale ji incha allah Abdou Xarifaal sa maam ak Baara Xarifaal ak Ibra Xarifaal bokk ndey ak baay ñooñu nag jëmmooy lañ dëkk waaye Xarifaal seen ndey ngiig Faal la dëkk ak jom waa cuuneen incha allahu rabbi soxna Lota Gaye ngi ñëw gonek APR gi وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي الدر منك يا الله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 قداس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويوم سبيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم uyoo bi nafsi bi tay in minka ya allah ya mu'minu fi janna bi durra ma kadarin waabliyal amna fi daarayn ya allah ñoom ñoo xam lañ ci jublu di ñaan ci kàttu Cheikh borom defal leen ci lu kawe njort loola dañu kenn ko la gudd waaye lu ca dal borom yëg ko te jàpp naay quartier bi lu fa waaye def nu nga ko defal ndax li doon suñu yéene bu ñu ko mënal lii it tey doomu aadama yi noo koy def ndax loolu mooy sunu yéene tey dëkk ci nun ndax cër la boo xëy Sëriñ Tuubaa doxal suñu diggante ak askan wi mhm. te dir nañu luñ ci def ci askan wi Sëriñ Tuubaa lañ ko defal kon lii ngeen def si fii leer nañ ni jëf la joo xamante ni jëfal leen ko kenn ku dul Sëñ ndax jabar Sëñ Tuubaa bi ne te déggal naa ci kàddu Sëñ Saaliw mu ne ku nekk ci dëkk bi euh, loo xamante ni bi yaa ngi koy def ci sa kër noonu nga koy defal ndax noonu la waral kon sunu borom dogalee nu bokk ci jëw yi ñu ngi liggéey loolu dañuy jàpp ni loolee ko waral noonu la war mm-hmm. kon ku koy def si noonu nga koy defal kon dañ leen ci sant tey ñaa tey di dolli di leen ñaanal yéen ñi nga xamante ne bi yéen lañ fi yebal ngeen dem bay yeble ki leen yebal it moo xam lam ci bëgg suñu borom defal ko ko ba defal ko ci lu kawe njortam. barke borom tubaab barke maam Saraay Faal mm-hmm. mel na lu néew waaye rëy na lool ci noonu la rëy na lool ñu ngi nag ñu dem ba muy doon fàttaliku boo xamante ne dañuy fàttaliku naa bis bañ ko njëkkee indi de xoolal lañ fi indi woon eh, ak liñ fi indi tey قبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز العزيز أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إمات الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداد بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا yàlla ko yàlla fay yéen yàgg koy joxe su teew koy ateel barke sëñ Muntaxa yéen yàlla fay fii nañ ko fi soxla nañ ko lool jërë ngeen jëf baax a baax a baax a baax ndax xam naa ne lii de moom na ngeen ñun ñi ngeen fekk fii amuñu seen pay sax ndax naaj yu tàng na mbir mi tàng na wante yéen ñu jàppale yal na leen yàlla jàppale ci barkeb suñu seex yi taxaw ñu suñu sëñ yàlla na ngeen fi yàgg te wér li ngeen bëgg ci seen xol yi yàlla na leen ko fi yàlla defal rek ñoo ngay ñaanal Aly Ngouille Ndiaye jëm ca kanam rek yokku rek ba mel ni sororo Touba ba tax loolu nag laa koy ñaanal yaakaar naa yàgg naa fekkee yàgg naa gis def lu mel nii Aliou Ndiaye yitteem yëpp mooy liggéeyal Sëriñ Touba lépp lu ma am Sëriñ Touba ko kon bu baax baax waa Touba yi ba waa tubaay yi ko loolu lu am solo la ñu nag dañ koy rafetlu bu baax baax te di ko ñaanal mu yàgg koo def ndaxte am na fi nekk ñoo xam ne ñu ngi dëkk fii ci dëkk bi waaye wax dëgg seen taxawaay ji biir Touba des na trop trop trop trop rafetlu seen sant nañ bu baax ci teewaayu soxna Lô Dégé nga xam seen moom la fi président Aly Ngouille yabal lépp ci eh, huit heures mën naa wax neuf heures ba léegi mu ñëw fi dugg ci gox bi di fi joxe ay ndimbal yu am solo wax dëgg yàlla lu xam si ne wóote wutum ndaje waxul dajale kenn xëccul mbooloo ci sutura la koy def def porte à dugg ci kër yi dimbali ci nit ñi ndax li muy joxe mën naa wax ne loxoom ni jooram bi càmmoñ bi mën na kaa bañ ndax bu doon lu yàlla taxut day woo mbooloo mépp ñu daje ñu koy tërale kon ñu ngi sant soxna Loota di ko wax ni ko ali Ngouille Ndiaye ma xam si ni moom la àndal ñu ngi koy sant ci acte bu rafet bii xam si ni def na ko fii ci gox bi ndax ñim ko defal maanaam yeyoo nan ko te te képp kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa bëgg lu baax eh, jàpp naa ni ñii ne ci dëkkam bi war ngaa tàmbalee ci ñoom rawati ñi ne ci sancaane ndax sancaane li nu manqué bëri na trop boo gisee weeru koor bi jigéen ñi yenu seeni siwo eh, nekk ci marché yi di dang-dangi maire yu am ay juróom fukki at mënuñoo toog ngir ñàkk situation bu normal tey bu Aly Ngouille Ndiaye ñëwee indil leen ay ndimbal loolu dañ ci sant yàlla bu baax di ci di ci di ci di ci di ci bég eh, eh, di wax ne am na ci mbégte contentement beneen bi ci des muy moom Aly ñun ngi koy lancer message ci ndax ku la defal teraanga wala ku la jox ndékki bu la diggee añ war nga kaa gëm comme ginnaaw defal nañu teraanga ji soxna loolu dañ lay yóbbante ci moom ngir carte bi nga xam si ne mooy sublu salaam li dafa bëri te ci la bokk Serigne Saliou moo ko sancal boppam rëdd ko wax fi lim fi wax joxe tur kon courant amu fi aw yoon amu fi bu 10 heures xasee jot wala 9 heures doo ñemee yónni gone wala mag bu ñemee génn ndax làmp tëkku fi poto yi ngeen gis depuis màggal la ba léegi courant wàccagu ci te loolu metti na danoo yor daara di jàngale alxuraan bëgg gone yi jàng marax te amoo làmp yoo niite loolu mënut a sotti te mi daara mi ngi ci gox bi jigéen ñi fi ne guddi ku dara arfe wala dara jigéen gu wéru nga bëgg a dem si amu fi amul transport amul dara kon loolu lépp ñu ngi koy lancé wàlle message bi soxna Lodé di la ci Aliou Ndiaye te di ko wax ni kontaan nañu trop ci jëf si jëf na ko ndax indi na ko koñ bi xam si ni nit ñi yeeyoon waaw ndax da ngaa fett ñu xam si ni bu nu wóoleel dëkk ba ni ko ñëwal jël si ko dinañ daw jël si ko kon boo taalee sa oto indil leen ko kon loolu dañ la ciy sant la wax ne la jërëjëf bëgg nañ ci loolu soxna. tàmbali woon nañu moom suñu koñ yaakaar naa yéen moom gis ngeen ko moom ah, en même temps sax mu placer nii. Ah, tiiraan jot naa faa joxe ay ceeb waaye nag ah comme que sancaani ñoom nag moom ci dëkk bi lañ dëkk te ñoom xam nañ seen situation waaw man nag moom je préfère ma ñëw fii a ah, daal di fekk si kii na man moom sama góor gu baax gi waaw mu nekk suñu alaaji si la waaw nekk kilifa diine nekk ku baax moo tax ma ñëw fii tey waaw Papa Alioune ko nag ñu ko moom paree bi man jotuma compte ma yaakaar naa joxe nañ fi ah cinquante saag yi léegi joxe nañ fi waaw te en moom paree bi tamit moom dañuy continuer waat expérience ku leen xool xam ne hmm. la moom ngi liggéey ne parce que ci quartier mi ngi investir mi ngi def mais li mu def daal di ko feeñu waaw parce que fi ko jaareel la moo tax loolu hmm. jot na trop loolu dafa jot sëkk sax ndax ñii ku leen xool xam ne ñoom aaji nañoo jàppale aaji nañoo financement ndax seen liggéey demeewul noonu ndax ñoom xëy na ñoom moom ñi ngi dégg ñoom moom turu projet turu ay financement turu jigéen ñi xëy na ñoom amuñ ci benn ñi nga xam ne ñoo dëkk bu baax ah ñu ñoom waxtaan ak ñoom teg leen ñu a bokk ñoom nag yi parce que financement yi ñun ñëpp ñoo si bokk yem man mi jàppale Aly Ngouille Ndiaye ak ki jàppale Sonko ki jàppale Karim Wade ñëpp ñoo si bokk yem Macky Sall ñun ñëpp la yemal waaw ñun ñëpp ñoo ci bokk yam man daal damay ñaax sama mbokk politicien ñun ñëpp la ñoom dugg ci waxtaan ak ñoom ñoom moom ñaax leen parce que ñu ne moom yitte woon nañ ko trop xam nga daaw dafa xawoon a metti ndax daaw <coughs> yaakaar naa ci biir koor yi ñun ñëpp gis nañ ñun doon dund ah, jamono boobu ñu mu amoon état d'urgence ah dong yi daañu dama dugg ci ah, woon loolu moo taxaw ñu demoon ci parce que li ñoom moom yaakaar naa man ñoom moom donte ko ñaari fan sax xam naa ñoom moom dinañ ko a kii mm-hmm. bàyyi na xel mm-hmm. ñoom la gën a bàyyi xel parce que ñii ñëpp ñoom moom ci ak njabootam la ñu bokk wax ne man képp koo xam ne maa moom ñoo bokk Serigne Touba dama ndax lam am li ngeen moom la am Touba kër yi am li moom la am Touba te ah Alima boo xam xam ne moom moom moom sëñ Touba la yaakaar sëñ Mountakha mooy baayam. macha allah waaw sëñ Mountakha moo ko baayoon moo tax nag waa tey waa mu yónni woon ñu fii nag moom ci mbokki kii yi taalibe yi. jaajëf di ak njabootam.